Sai nake bada bacci da ma hidima da funya fi dara ma da faga nega hidima kiloman mungi ne ta musa eliman mun ta mun ma tekele kenn nga jomo jine toluma comedy te xamna jag nega di sen ci buntu galla bi nega fa sa la kan bi rebu karale jangale te mënagu mëne la gudi bi même su moy ubbal li cafando du rambo mais mën na rey armé lëf ci combo booy nando ni ci combat kill anaconda dawal flow bi sama donga amu benn nigga bu ñeme jël sama avance ba signé contrat iri giri firi giri de ko geri siri jaru wiri wiri sànni xeeri doo fi firi firi kiti kiti biti biti wuti guddi lu mu buddi du ñu buddi fiti dañu indi la sa kiri biti yóbbu furu fara rabaguma dara dama ibi dara fi ba kiri koora di ma dégg doo ci dara taral lu nara dama arabiya dama tarabiya kung fu yoro flow kung fontu ba ma toppu di nga pompu en coup day fonku uti ko utul sa digg doole bu ci coppi xoolal nu mu gën a moo la banaa ñoo la si gindigale ku jaadama ñaana gàdda padd ragalu daana tos yóru bi ku urdu yàlla am si dër bu sell ni burdu foog sa da safando xel bi sell ni malaana wasi fa da musiba teg si jegewul xasida waaye yemal sa kilifa sa dëgg-dëgg amatuñu da nga bëgg dégg tiếp đẹp tên nữ tết chỉ bắt cắt cắt tên đồ sân phẹt lô xét white light tech high tech tên jet set